Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos activités se portent à merveille. Alors, je la Fatima Diouf, juriste spécialisé en immobilier, spécialisé dans le foncier. chaîne bi nous ñu de ci waxtaanee lépp lu laal wàllum suuf ci Sénégal tey nag dafa am benn laaj boo contexte bi ñu nekk moo indi mooy est-ce que tey war nañoo ragal tey terrain pour un titre foncier la. faut-il avoir peur de certains titres fonciers. pourquoi ñu laaj laaj bi parce que jamono yi ñu nekk di wax ak yéen da ngay gis ñoo xamante dañoo am seen terrain titre foncier ba paré ñu am problème ba ñu nangu seen kër motax ñu laaj laaj bi. loi de 2011 bi nga xamantene organiser propriété foncière fi ci Sénégal lan la le titre foncier c'est le droit le plus absolu c'est-à-dire que le titre foncier un acte juridique la bo le droit de propriété le plus absolu pourquoi on dit ça parce que c'est un titre définitif avez un titre foncier vous du laaj ngay procédure c'est aussi un titre inattaquable pourquoi on dit que le titre foncier a un caractère absolu parce que tey am nga usus bi fructus bi ak abusus bi tey su la neexee nga maye su la neexee nga jaay su la que dans une hypothèque donc c'est un titre absolu inattaquable et intangible Ken ne ko yëngal mais malgré tout ça tey dañuy gis am na ñoo xamante ne dañuy jënd titre foncier ba am problème mais lu tax c'est la question qu'on se pose pourquoi tey nit jënd tey titre de propriété bi gën un mag ba problème ñaari mbir tay mën naa waral li nga xamante ne moom mooy indi problème titre foncier yi ngeen di dégg benn mooy titre foncier bi nga xamante ne tey c'est un titre foncier global par exemple boo xamante ne man maa ko moom wala Masamba moo ko moom wala Alex moo ko moom tey c'est un titre foncier global au nom d'un particulier titre foncier bu mel noonu tey bu dee man dama am un titre foncier sur deux hectares ba pare lotissé ko dagg ko jaay ko te man jaaruma fi mu war a jaar amuma autorisation de lotir awma certificat de conformité dewuma kadas dewuma fenn mais titre foncier la am rek ma dag jaay ko ki nga xamantene ne moom jënd ci titre foncier bu mel da fay am problème parce que ben du mën am son titre définitif su démé kadas dañ ko lotissement bi excel su ñun amul autorisation de construire wa kadas réceptionné wuñ ko amul certificat de conformité donc yow mi nga xam ya fa jënd do fa am ben ben ben acte du dul acte de vente bi nga xamantene ne la propriétaire di defaral té lolu nekkul garantie parce que ki nga xamante ne moom moom titre bi à la base su tay lee kër gi ëllëg fayul banque banque ñëw su taylee titre bi nga xamante ne moom la la jaay yow amoo fa benn titre de propriété fayul banque banque réaliser hypothèque bi nangu euh, li nga xamante ne mooy titre bi yow mi nga xamante ne yow yaa fa jënd sa kër yow yaay perte réalisation bi ma wax ci banque ak hypothèque yi moo may permettre ma ñëwaat ci deuxième point bi nga xamante ne moom mooy indi yu bëri titre foncier global bo xamante borom moko mom moom lotissé ko bi hypothèse bi moy ki nga xamante jaar na ci yoon amna autorisation de lotir dem na cadastre dem na domaine dem na fépp amna lim wara am yépp ba lotissement c'est un lotissement régulier mais le problème c'est que dafa taylé le titre maire le temps que ñeneen ni di am sen titre foncier individuel mom titre maire bi taylé na ko suñ demee ëllëg ba mu am jafé jafé fay banque bi li nga xamante ne kayit bi nga ko jox pour mu euh, garantie crédit bi nga xam ne moom la promoteur bi jël moom lay réaliser moo koy jox sañ-sañ tey mu mën a ñëw euh, ci sa kër gi nga xamante ne moom nga dëkk yow ci titre foncier bi nga jënd mu nangu ko parce que ki nga xamante ne mooy la détenteur du titre foncier moom fayul loolu moo indi problème mu Daaru Salaam bi ngeen di dégg au niveau de Tivaouane Peulh ak benn problème boo xamante ne yéen a ngi koy dégg ci Kër Massar ñoo xamante ne jënd nañ seen terrain depuis Matizalem ay ça fait 15 ans yoo xamante ne ñoom jënd nañ ko fay nañ dañu war a fay mais le promoteur kenn xamul fan la jógee jël euh, titre foncier bi nga xamante ne moo nekkoon ci turam tayle ko banque fayul banque bi banque bi ñëw nangu kër yi nga xamante ne moom la Masamba ak Mademba moom la ñëpp jënd dëkk foofu pendant des années. loolu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne ni ngeen ko mën a moytoo mooy yow mi nga xamante ne yow yaa bëgg a engagé wu ci titre foncier soo amul un professionnel boo xamante ne moom mën na la laa gunge ci sa euh, transaction boobu. li la ci mën a génnee mooy nga dem defal sa pop say propre vérification surtout nga laaj li nga xamante ne mooy droit réel yi soo ubbee droit réel yi di nga gis benn partie boo xamante ne bind nañ ci charge suñ ci bindee nayan ça veut dire que titre foncier bi tay la wuñ ko suñ ci bindee euh, hypothèque kon nga mën a moytu bu baax te xam ne lii dañ ko tayle te ëllëg problème mën na la cee fekk bu dee ci première hypothèse bi ma njëkk a wax mooy titre foncier yi nga xamante ne lotissement bi jaarul yoon tamit li la ci mën a génne mooy nga dem kadas vérifier ba xam ndax lotissement bi am na autorisation de lotir ba xam lotissement bi yegg na kadas bu dee loolu am na jëndal mais bu dee loolu amul mën ngaa moytu jënd ci lu mel noonu ñu ngi leen di jaajëfal ci seen teewlu di leen ñaan ngeen abonné wu ci chaîne bi bu baax a baax pour gën ñoo encourager di leen jox dëgg daje la prochaine fois pour une nouvelle vidéo